léegi li ñuy def mooy dañuy dem ci press bi dañuy dañuy dem ci presse bi ñoom ñoom it jox leen. amagut luñ koy wax ci wàllu làmb xam nga tax lu amagut luñ koy wax day xale boo xam ne nii lii mu toog ci làmb Gris Bordeaux Sénégal gépp dañ ko war a remercier ndax Ama Baldé dafa toog quatre ans ci làmb te ñiy dégle ay victoire Ama Baldé moo leen gën a nekk en vogue ci làmb. loolu bu amee mooy xale boo xam ne nii ci làmb ku toog quatre ans ci làmb say morom bëri fi trois combats yow nga nekkaat ci làmb nekk en vogue bu ko Gris Bordeaux nangoo jël kon képp ku nekk ci làmb war ngaa remercier Gris képp ku nekk ci salle bëgg naa nga tàcc Gris Bordeaux ngir loolu ndax làmb dafa am ay ñoo xam ne dañ koy yokk te Ama Baldé bokk na ci suuf yoo xam ne nii ci làmb bokk na ci ki xale bi nga xam ne nii moo ëpp adversaire ci làmb bokk na ci xale yi nga xam ne moo ëpp adversaire ci làmb kon Ama Baldé sa diggante Gris li ci xaar benn waaye li ma ciy wax Ama Baldé rek mooy lenn bis bu demee ba am lu muy la ci diggante ba Gris Bordeaux bu yow mu bàyyi làmb Ama Baldé amul dara lu mu xool ci diggante ba Gris ndax Gris benn moo ma daan du gàcce ci làmb waaye Ama Baldé daan na Gris Bordeaux a dañaa war naa mën a nekk ndax làmb day toll ci jamono yooyu li ma ciy wax rek mooy Gris Bordeaux la ma la waxoon naa lay waxaat làmb ji ku dina ci am solo trop ci yow waaye mënu koo jeexal finition moo koy jeexal te kenn du ko jàngal maa ngi nuyu réew mépp di leen ñaanal jàmm di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. ay tàccu leen Fadam 2 mais mais Ray li Fadam 2. El euh, euh, wax ci tuuti rek ñu daal di euh, li Fadam wax dëgg la mais nag nga xam ne ku ku ku mën na jeexal làmb ça dépend ci filo ku bi dal. parce que merci merci Ray. ah non si ku non Fadam nañ pelloo jox ko micro. waaw non non nañ pelloo. jox ko jox am na foo xam bu la fa dalee moom waxoo waxuma la laa ko ci jeex waaye saison bu tëj saison sax mën na tëj. waaw soo gisee mu ne ko ku du jeexal làmb ci digganteem ak Ama Baldé. Père Ray Ama Baldé fi muy jël ku ci làmb ak ñu bëri fi ñu koy jël du benn. ndax Ama Baldé boo seetloo ci sa digg la lay xaajale te gauche droite biy jóg da koy jaral mu jël ko pour mën a agsi fi bëgg jëm kon foofu nag moo tax ma ne la pour far fas dina ñëw. non mais c'est mais mais mais Fadam. waaw il faut nga xam ne aussi. waaw Ama xale la. waaw athlète la. waaw mbër la boo ne neexul xeexal. waaw parce que daf lay perturber. ci ni ngay bëree. mais il faut nga reconnaître ne aussi. Gris Bordeaux dafa bokk ci mbër yi dàq xeex ci Sénégal. nangu nañ ne Gris Bordeaux bokk na ci mbër yi dàq xeex ci làmb waaye bu ñu fàttali ne dafa jël coup Malick Niang bu mu jël coup Malick am na impact boo xam ne teew doon def kon Gris Bordeaux xam ne combat bi la ci waaye song boobu mooy B bi. Fadam naa ko jëlati ko. ah dafa mel ne da nga fàtte coup. waaw mais raay. waaw Max am na solo mais xam nga problème bi mooy. waaw. déggin lay laaj. waaw xale bu ndaw sax bu la mun naa nga yëg ko mën ngaa yëg suuf. walaay ça dépend ci fit la koy dóor. mais fi ma lay nangule sa kàddu mooy maanaam ama kurpeñ du ko tee ñëw. waaw waaw waaw kurpeñ du ko tee ñëw ngay waaw waaw waaw waaw. <laughs> waaye tàccu leen bu baax a baax a baax a baax suñu ñaari suñu ñetti mag yi Fadam de Ray ak El Hadji Max Mbargane en ci wàllu làmb luñ rek teg ko téere la dañu def théorie de pratique donc dund nañ ko ci biir saahir ak baatin euh, Ibrahima euh, Diop Kajoor production ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci confiance bi nga xam ni jox nga ko groupe des médias ci làmb ji waaye tamit xam naa ni ni may remercier ci turu des médias noonu la la presse bi yëpp di remercier da nga leen yaatalee liggéey bi ba lépp yemb ci ñoom ñu ngi lay remercier bu baax a baax di bàyyi la nga tëj euh, après ñu bàyyi nag mbëri ñu daal di tàggatu waaw Cheikh di sant ñi fi teew ñëpp leen ñaanal jàmm leen ñaanal sutura di nuyu suma xarit ñi fi teew ñoom Ousmane Ciss ak ñoom Daouda Diong ñoom Mbaar di nuyu waa amical Mabou Ndo ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar baax suma benn xarit depuis Doha di dox Ali Sarr ak jabaram waa Fatou Ibrahima tey maa ngi koy nuyu bu baax foofu ak doomam. leen di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu le monsieur ambassade bu nekk depuis Doha maa ngi baax a baax di ko jox wàccuwaay di nuyu waa Doha yëpp di leen ziar di ñaan yàlla la 5 février yàlla ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam ba lépp lu ciy séntu yàlla defal ñu suñu kay suñu jot ñu jiitu le février ñoo ngi jëm le premier janvier ci diggante Balla Gaye ak Gris Bordeaux suñ fa jugee diggante Boy Niang ak Balla Gaye fa jugee ñu dem ci le 8. janvier incha allahu rabbi ci diggante journée eh, Fallou Ndiaye caatu Yoff lañ ci jëm su boobaa jóge ko war a dem le 15 janvier ak le ñëw le doon bés boo xamante ni ñu ngi ci woo amateur yëpp di ci woo képp koo xam ne yaa ngi dund làmb te làmb sa ci safoo làmb ñoom la ciy woo ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah rabbil alamin di ziar ñëpp maa ngi sant ñëpp jërëjëf. Gris Bordeaux a toujours Lac de Guiers dem na bi bind ci ay yéreem Gris dafa ragal mu gis ni c'est pour la première fois Gris Bordeaux pare pour maye sens di ko may ki nga xamante ni roi des arènes moo nekk ci ay bëttam Gris Bordeaux lan moo ko may courage tey mu accepter may chance Ama Baldé bi nga xamante ni couronne couronne de roi des arènes lañ ko la moo nekk ci xelam dem na ba muy naan euh, futur roi des arènes lañ may euh, pour Ama Baldé Gris Bordeaux bi combat bi taxawee man dama mën a waat ni Gris Bordeaux jusqu'à la fin sa carrière du bëri ak Lac de Guiers parce que mbër attentiste la mais bi seen combat taxawee dafa ne genre combat bi laa yàgg bëgg sama carrière mbër bu offensif est-ce que amul dara loo lu la jaaxal ci le fekk que Gris Bordeaux sawar tey bëri ak yow parce que bu amee mbër bu attentif rek dafa mel ni du ba am lu mu bëgg ndax yow xel en tant que champion amoo lu la si a jaaxa nar a bëre ki nga xamante ne dafa kontaan bëri ak yow parce que boobu ba léegi mu ngi insister que ni mbër offensif nga donc ñaari combat yooyu la pour yéen euh, pour le promoteur ñaari question pour pour le promoteur di ko féliciter Euh, je m'associe ak ñi nga xamante ni ñëpp ñu ngi lancé appel pour que sponsors yi ànd ak moom jàppale ko effectivement loolu dafa war a nekk suñu xarit la suñu mbokk la ci Pikine mais lan la mën a def moom tey budget bi nga bi nga bi nga ficelé pour sa combat la su sponsors yi ñëwulee yan acrobatie tey financière nga paree pour def ko pour que combat bi nga bañ ci perte parce que bëgguñu benn promoteur dugg dugg bu bees nga perte dara nara nara dellu si. Euh, jërëjëf monsieur Dembélé Dembélé moom sama goro la sama rakk laa ko dégg euh, euh, question yi am na solo mais balaa ñu ñëw ci question Gris Bordeaux ak Ama Baldé dafa dafa laaj question yu am solo nan ngay waajalee combat bi le 5 février ak lan nga ci mën a xaar. waaw Cheikh balaa ñuy dugg ci question boobu ah, maa ngi ñaan ñu toog fii ah te ànd ak mbër ñu def lépp ci respect ndax seen mbër bi muy soog toog am na message bu mu lancé kon du ñu liggéey ba yëg si fii nit ñi toog par respe am na ñuy toog seeni kër di seetaan ay kilifa ñooy toog di leen seetaan kon nañu ngàlla ñu ànd ak respect ak cër képp kuy wax ñu toog ñu déglu ko seetaan. ñaari mbëri ñoom ñooy bëri ñoom ñaar ñooy dugg ci géew bi bu waxante bu am ñoom ñaar ñooy am lu ñuy waxante kon nañ leen bàyyi ñoom ñaar ñu waxante ñun ñu toog seetaan leen loolu mooy li nga xamante ne mooy li rafet ça c'est vrai tàccu leen loolu bu baax a baax a baax am na solo pour question Dembélé yi waaw mais mais mais mais euh, commandant xaw ma commandant commandant s'il vous plaît service d'ordre nañu régler fii quoi ñu mën a continuer parce que ay ay ay ay ay ay kilifa fi toog dañu leen respecté bu baax a baax parce que avant Baldé wane na wane na respect ba mu jeex bi mu toogee li mu wax lan la waa Pikine nañu dalal Gris Bordeaux ñu bëre sport la sport nag da ngay ànd ak dal ànd ak yar bu ko ñëpp àndee parce que li ma leen di wax à chaque fois xaaral xaar voilà grand merci beaucoup grand Jules Baldé merci grand jërëjëf jërëjëf grand Jules Baldé jërëjëf parce que parce que dafa am benn kàddu boo xam ne dama ko bëgg a wax rek mooy que ne gis nga Gris Bordeaux mii ak Ama Baldé mii bu la cinq jàllee ëllëg mën nañ daje ci yeneen i barab dem ba bokk sax boolu añ wala tuddantey doom ku ca defoon naka su dul noonu ba ñu tëj la ca wala boog ñu gaañ la ca mbaa yàqal la ca yow yaa cee am gàcce li daal gis nañ ko bërki démb ci diggante mu Lo ak Balla yi dem nañ ba ñoom ñaar bokk benn ndab di lekk di bokki teraanga bi kii gaañulee kee dem na jaali ko ñii dañuy xaalis donc il faut ngeen ànd ceeg dal Gris Bordeaux xolal Gris Bordeaux ngi nii Gris Bordeaux ngi nii dama leen di wax benn affaire Gris Bordeaux